waaye ñu ngi nuyu itam suñu mbokk journaliste yi nga xam ne tey ñoo teew fii waaye ñu ngi nuyu itam waa Sénégal waaye rawatina nag waa Ndakaaru yi nga xam ne ñoom la transportu afti ak lu mat sept régions wala huit ci Sénégal tey nga xam ne tey seen dem ak dikk ci loxol afti la nekk waaye dañuy wax Thierno Birahim Aw ca conservation wu setit ci la commencé ay problème am gouvernement yi ko romb ministre yi ko romb directeur yi ko romb dañoo waxtaan ba d'accord nan lañuy def ba régler transport Sénégal ñi war a dem ak dikk man cee dugg nu mu leen neexe dem doxe ji seen soxla di delluwaat ci heure bu mu leen neexe ñu taxawu afti ba mu taxaw lañu fa doon préparer lépp transporteurs yi ànd ko ak concentration wu setit ñan ñoo fa nekkoon transporteurs yi dañ fa daan teew kat villes yi nekk dakaar muy Dakar ci boppam muy Guédiawaye muy pikin muy Tëngéej ville bu nekk am sa représentant ci biir consommateurs yi am représentant ci biir ministre de l' intérieur am représentant ci biir ministère des forces armées am représentant ci biir mbooleem ñi nga xamante ne bii mën na maa wax na mooy ñi ŋànk réew mi yëpp kenn ku nekk am sa représentant ci biir fa lañu doon toog di fa waxtaan di xool lan mooy jafe-jafe réew mi fan la nit ñi bëgg ku leen fa yóbbu fan la nit ñi bëgg a def gaar ban yoon la nit ñi bëgg oto yi jaar fa loolu ñëpp ñu koy waxtaane ak afti ministre finance nekk ci biir amul kenn ku manqué nun ñëpp nu bokkandoo di toog di sottente ay xalaat ba d'accord ci aaw xëy-xëy ne ñooñu ñëpp jóge leen foofu man soxlawuma seen xalaat men na man maa fi toog léegi di demee sama doole ak sama xalaat lu ma bëgg a def loolu laay def lu ca topp dégas ñun bañuñu BRT bañuñu TER bañuñu leneen lépp luy def transport dañ see d'accord parce que kenn ku daw ci réew mi jël sa wërsëg mais li ñu mënul d'accord mooy afti bi nga xam ne soo boole woon Dakar dem dikk boole kook koog BRT boole kook teer bi ñoom ñëpp li ñuy transporter li afti di transporter moo ko ëpp fuuf te afti moo gën a yomb paas xanaa koon afti mooy ndimbal njaboot waaw xanaa kon ku fi bëgg a jëlee afti kay nit ñi nga bëgg a rey du afti kese wax dëgg yàlla waaw léegi ñi nga xam ne cent franc lañ doon am wala fukki dërëm wala nàngam wala nangam yooyu yëpp aftu nee na yéen waratu leen a nee na waratu leen a dugg léegi ci oto yooyu oto boo xam ne te ma leen di yëgal BRT ba ñu déparé di wax dañ ne woon Dakar ba Guédiawaye 1000 francs la afti yemale ci paasam fa mu yem moo tax ñuy jéem a wàcce seen paas yegg ci afti bis bu afti dawatul woon ñoom dong ñu def si fu leen neex la ñu yóbbu seen seen transport teg ko foofu waaw ñun ñu nekk fi booba ba léegi wax dëgg yàlla nun de noog peuple bi ñoo dëkk ci la nu bokk baye boo nuy xeex ak ñoom di xuloo waaye mënuñu leen a bàyyi mënuñu noo bàyyi ndax lu nu am fa lañ koy delloo fa la nuy takkay jabar fa la nuy def suñuy kër demuñu ci benn benn du ngo du almadi du fu mel noonu ca bàlyi ba fa la dëkk transporteur yi ne fi yëpp kenn jënd fa kër almadi da dellu ca peuple ba rek dem jënd fa ndax ñun nag suñu doom yi jaxasoo ak ñooñu nuy xeexe ko xuloo di ànd di liggey ànd dem jàkka ànd dem marché loolu lañu xam aw nak neena yeen da ngeen fi wara joggé jóge fi ñan aw gas gele ji ay ay ay ay ay étendre ay étranger ci àll ba na nak bañu ñu ay étranger and ak ñom di liggéey waaye nan bokku liggey may dégager leen yoon fofu joggé fofu man ma tek fi ñooñu ñu ñew liggey loolu la transporteuru afti ci ndigalul président mbay Amar ak njabootam gi toog fii ñoom ñëpp ñoo àndandoo teg seen kàddu ne loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ba ca topp nag mooy suñu toogaay ak aaw moom pare na jeex na tag ludul ludul ñu toog ak moom ci suñu kanamu euh, suñu kanam ministre di El Malick Ndiaye suñu premier ministre suñu premier ministre Ousmane Sonko suñu président de la république Diomaye Diakhar Faye ndax ñoom nag dañuy soga sont ci parce que nous falkat bude dee président Sénégal bu ko mas amitam, même pas un mois nga élection gagné 54% quatre pour cent ba tegal ca as morso yaakaar naa c'est la première fois ci biir Sénégal ñu gis président bu ñu fale noonu kon nag président sa njaboot a ngi toog ba ñu amee seen alal jëluñu ay milliards denc ko ci banques yi jëluñu ay milliards tabax ko ay immeuble di ko luyee lu leen neex di tànqal nit ñi wala di leen bundu xataal danoo jël milliards yi ñu def ko ci ay oto sénégalais yëpp bokk ko fanaana luñ ko ci ab tabax muy nëbbu ci mbedd mii lañ koy fanaan bokk lañ koy bàyyi muy fanaan bokk ko ak waa sénégalais yi ma ne kon nag président de la république yow ak sa premier ministre ak suñu ministre ak gouvernement bi afti ñi ngi yëkkati seen kàddu ak seen wàllu te yaakaar ko ci yéen ndax nag ci réew mi la bokk te lañu war a def ci réew mi ñi ngi koy def ñi ngi koy def ndax kuy jël lu ma juróomi junniy nit di leen liggéeyloo Mohamed Ndoye wax na ko léegi lu tolloo juróom-ñett fukki jigéen ak lu topp nu ànd ak ñoom ñu bokk ci ñun di liggéey ñu amee oto ni nun góor ñi rawatinaak personnel bi ñeneen ñu jigéen ñi nga xam ne ñoom itam ñi ngi nekk ay contrôleur wala ñu nekk ay receveur nekk ci biir circuit bi di liggéey kon Sénégal afti dafee nekkal góor nekkal fi jigen nekkal fi mak nekkal fi ndaw waaye nekkal fi gouvernement bi yëpp ku ne xam na ne dun nekkuñu fi di jamar lo gouvernement wala di xex ak mom kañ lañ gëdë def lu melni ta te buñ nu bundu xatalut kenn duñu dégg ci loolu ñun nak dañu yor alal yori milliard bëgguñu ko ko yàq motax tax xeexunu xuloowunu waaye nag ku nu bëgg a toroxal nu jàmmaarloo yow jox la suñu bakkan loolu foofu la ñu tolloo aaw kon nag ñu ngi leen di sant bu baax euh, di leen gërëm yéen mbokki journaliste yi nga xam ne yéen lañu am yaakaar ñu ne lii ñuy jooy yéen a ñu ko mën a jàllaleel ba suñuy kilifa jot ci waaye ñu nekk ci réew mi jot ci waaye ñu nekk bitim réew itam jot ci ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm jërëjëf.